salaamaaleykum wa rahmatullah kon fukk ak benneelu weeru koor ku ca julli ñeenti rakka bu ci nekk mu jàng ca faatiya benn yoon inna anzalnaahu kaafirun ak qul huwallahu lu ci ne juróom-ñaari yoon bu sëlmalee mu wax laa xawla wala quwata illa billahi aliyil azim juróom-ñaar fukki yoon julli ci yonante bi salallahu alayhi wa sallam juróom-ñaar fukki yoon suñ boroom dana ko musal ci balaa yi ci fitna ak ci mettitu dee te kooku dana tabbi aljana te dee su ko xisaab kon fédération tout tànk Touba Toscana ñoo leen di ñaanal koorug jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh